rek nga xam ne yàlla rasulaay dong ko ñor yàlla ne si gina Muhammad alayhi wa mu ni ko naam mu ni ko sama teraanga day xaw ma ko koy miim waaye du yow wallaay yow day rasulullaahi <laughs> sama teraanga jox naa la ko ba mu doy sëkk wa kaana fadlullaahi alayka azima mm-hmm. yàlla ne si gina Muhammad mm-hmm. waxal gaa ñi ni mm-hmm. li ma metti mooy li ma leen defal xamuñu ko mu mel ni rasul daf ni ko yàlla loo leen defal mënu ko yaw yow laa leen defal neexoon na ma man yàlla ma def la ngay jinne mbaa ma def la ngay malaayika mbaa ma bàyyi la ci sa leer gi alaaj pap alaaj pap Cheikh maa ngi lay wax ni leerug rasulillahi nekk na fi junni junni junni ab dara amul leeram rek yàlla rek ak rasulaay dong yàlla di xool leerug Seydina Muhammad hmm. ndax ci moom la bàyyi ko hmm. yàlla coppati ci leeram bind leerug rasulullah hmm. waaye looy dégg ak looy xalaat yàlla ko bind ci leerug Seydina Muhammad yàlla ni ko ma def la ngay nit ni ñoom bokk ci ñoom te neexoon na ma ma boole la ci xeetu njëkk ma xeetu aadama mbaa daawuda mbaa suleymaan mbaa zulkifli mbaa ilyasa ñoom sa gaa yi waaye ma denc la ba nga ñëw denc leen ñoom ba nga ñëw ma boole la ak ñoom te li ma leen defal xamulu ko laxat man na allahu wa muminina mhm. Mhm. xam nga professeur magum jëmm toll ni magum jëmm toll ni yàlla su demee bay giñ la muy giñ ñor na ko wallaay ñor na ko laam gi ci grammaire arab laamu xasam la xar gi di xat xatu taqiir xam nga xat ñeenti yëf lay ñëw mhm. dafa am taqiir taqrib taqlil ak takfiir xam nga booy li xam xat xaamati salaat xat googu mooy jege si na lay firi ku nay ñu ne xat ya juudul baqiilu xat googu néew na lay firi ku tabe ñu ne xat ya juudul kafiiru euh, mooy xat bari na ya juud bu tabee al alkarimu aji tedd alkarim waaw mm-hmm. xat googu bari na xat gii néew na xat gii mbuy li xaam néew néew jege si na mm-hmm. waaye xatuk yàlla gii nag day dëggal mm-hmm. la xat mën na allahu alal muminina ci dëgg-dëgg man yàlla maa xéewal jurit ñi jamono ju ma yónnee ndaw lu bokk ci yéen alaaji saam mooy Seydina Muhammad xad kaana nuuran قد كان نورا ولا لوح ولا قلم أها ولا سماء بي إلا وقد رفعت قد كان نورا أها قد كان نورا وأنا واك رسول الله أنا صبي سيدنا محمد قد كان نورا سامنينا كي دغ دغ دغ دغ نيكنا دي لير موم رسول الله ولا لوح بيمي نيك دي لير الله والله المحفوظ امغول ولا قلم بسيدنا محمد نيك دي لير ah ولا ولا wala qamarun. nee na alliw ba amagul xalima ba alam amagul waaye weer amagul. wala samaun badru fi maanaam bi sink na Muhammad di nekk di leer asamaan amagul ndëri asamaan yëkkatiku na mi ngi yëkkatikoo taxaw amul pied ci leerug rasulullah wala jinaanun janaan janaamagul ولا نار الجحيم سفر الجحيم أما قول ولا عرش عرش أما قول ولا فرس آه سوف أما قول ولا عجب أما قول قد انتصبت نري سمبنا ولا نجوم نينا بس محمد نك دي لير خامن لو يالا بيند موما بيدي أما قول ولا شمس نينا جنت أما قول ولا قمر نينا وير أما قول ولا صحاب نينا نير أما قول ولا ardun wala suuf amagul xadin basatan ndere samp na mi ngi amee ci daraje rasulullah wala dawaabun wala dawaabun nee na luy dukkat luy dukkat boo ko déggee mooy rabu àll yi bi yàlla xamal rasulullah lu ma bind yaawaak dara amagul wala insun nee na nit amagul wala malikun malaaka amagul wala wuxuushun njaay àll amagul shaat boo xam ne dox na fi diriya wa dabat wala jibaalun nee na bi yàlla yi xamal Seydina Muhammad lu ma bind yawa dëkk yi amagul. wala barrun. jéeri amagul. wala shajarun. garab amagul. wala riyaaxun. ngelaw amagul. jarat. loo xam ne daw na. fi sahriya wa sarat. mu tasaaroo. fal kullu min nujir. aw doo. nee na yii ma la waxal li ma la ko yooyu yëpp na. yàlla amal na ko. fal kullu min nurihi rahmaan. fal kullu yëpp na. min nuri rahmaanu aw jadahoo xam nga man soo firi woon min nuuri yi rek doo dégg may wax ndax jaar laat ma juróom min xarfu jar la nuuri yi jar nañ ko min loo ko teree jar kas euh, daf di damir damir yëpp binaan nañu leen te lu ñu binaan li arab dañu feeñ dama naan kullu yooyu damay bàyyi min nuuri yi mm-hmm. aw jadahoo moom boykat bi am min nuuri waaye man sooy firi dama naan yooyu yëpp ma la wax awjadoohu amal na ko moom yàlla min nuurihi ci leerug rasulullah lawlaaw ma kaanatil afaaqu qad nuzimat nee na bu nekkuloo nag moom gox yi du nosewu doo xam Pikine Géejawaay noonu lañ mën a sewoo quartier bu ne boo ko demee nga xam ko Amérique France bu ne teqalikoo googu dëkk bu ne xam sa frontière fa mu yem mhm. Seydina Muhammad saylak mujizatun ajazat kulla wara waa ana waa laka mujizatun ajazat kulla wara xam nga saam foofu laa bëggoon a ubbee démb Pape Cheikh laka mujizatun ajazat kulla wara wara yàlla ni si gën a wax laka mujizaatun ajazat kullal wara fii nga ñëw ba agsi ci man laka mujizaatun ajazat kullal wara li dox sama digganteeg yow laka mujizaatun ajazat kullal wara dafa mel ni ki xalaat ñaari xoccam laka mujizaatun ajazat kullal wara mooy jege gi rasulullah jege yàlla laka mujizaatun ajazat kullal wara laka mujizaatun ajazat kullal wara الورى لك موجزات عاجزت كل الورى لك موجزات عاجزت كل الورى لك موجزات عاجزت كل الورى لك معجزات عاجز كل الورى خاب أو لك إيه، إيه. معجزات عاجز كل الورى إلى عبده ما أوحى لك معجزات عاجز كل الورى ما كذب الفؤاد ما لك معجزات عاجز كل الورى وعلى ما يرى لك معجزات جذت كل الورى خدره ذات الأخرى لك معجزات عاجزت كل الورى عند سدرة المنتهى لك معجزات عجزت كل الورى المعوى لك معجزات عجزت كل الورى سدرة المياسي لك معجزات عاجزت كل الورى ما زاق البصر لك معجزات عاجزت كل الورى لك معجزات عاجزت كل الورى لك معجزات عاجزت كل الورى لك معجزات عاجزت كل الورى yàlla ni Seydina Muhammad yaa yaru laka mujizaatun ajizat kullal wara yàlla ni Seydina Muhammad yaa yaru laka mujizaatun ajizat kullal wara ma zaqal bashru ma tahi laka mujizaatun ajizat kullal wara ma zaqal bashru ma tahi laka mujizaatun ajizat kullal wara yàlla ni Seydina Muhammad sabbu ñuul ci kudul ma laka mujizaatun ajizat kullal wara laka mujizaatun ajadat kullal waraaya ay ñi jaral dara ëllëg maak ñoom la ma leen di tere laka oustaz Alaaji Mbay Jàllo waaw ah. mm. soppay Seydina Muhammad mm. boobule sallallahu alayhi wa sallam maa ngi koy nuyu ndeysaan lii nag avant premier la avant la waaye nag ñaari avant premier lay doon mais dama lay dog am na sama euh, jigéen bu yónnee léegi message nee na à partir de suba nañu koy woowee ajaratu Awa Diallo ndax xam na ni place du souvenir dina mel ni Médine suba oh, incha allah allah alaaj Pape bu subaa nag ngay xam sopp si incha allah incha allah ki ngay ni réew mi uh-huh. rasulaay donga leen mais mais euh, dama bëgg nga ñëw fekkee